fisc va entrer en gare sur la voie. Merci de vous écarter de la bordure du quai. Le train. Comme beauté. Quelle beauté africaine Une femme noire. Une femme battante. Voilà l'Afrique. Voilà l'Afrique. Regarde-moi tes cheveux. C'est des cheveux cheval. Votre chemise en beauté.

maa la gën a tiit leen rek laa bëgg. muy lan. dama ko laaj. Eh, eh, eh, loo bëgg xool ñu tàccante am njaay doxal jóot ñu kalante <laughs> ñu kalante <laughs> coppatante <laughs> xoolal yow bu ragal loolu yow. xam nga ne man ragaluma loolu. cib nañ ko def yu fi mag rek. laay lay lay lay. fi.

di tàcc bi te te te nu écarté nu mu te ànd ak ginaar gi. langue fraîche langue fraîche yooyu ñuy lekk bu ma yërëm. duggal ci biir ñu ànd tak tak ma jël depuis solution ba langue fraîche loo bëgg ma jëndal la. xam lu tax du ma la yërëm. xam naanaan dama naa seen ngay ñëw xam ne naanaan. dugal xool ah, Astel mere naa la trop yow li nga def noo ko mënee Astel non da ngaa cuune toj nga réew mi yow nga xam ne yow ak ni nga dégg Astel nga xam ne déggoo sax daa yow daanaka lañ doon takkal seen diis ak yow Astel nga xëy rek bëgg a cuune fi nga joxante sama waaj ji pour lan. juum non waroon def loolu yow nga xam ne boulangerie boobu ñëpp koy wër Mbour Express réew mi Sénégal gépp fa la ñuy fa la ñuy eh, tamit non non non da ngaa da ngaa nelaw da ngaa da ngaa cuune. xam nga ne man lii ma def nii erreur la man xam naa ko te nangu naa ko reconnaître naa ko. Oh. juum naa. juum nga naa baal leen ma. juum bu rëy nga juum xam nga nu ñuy def dama koy rattrapé defaraat ko. pièce par pièce non bala ngaa defar et puis xam nga ne kër ma ngay toj. nee nga yóbbu ko feneen mais fi nga xam ne jabaram fii lay jëndee pain. bu leen tiit jéegam boobu xaju maara xaju garage la mbaw te du màtte léegi man dama leen invité ndogu. non que da nga nelaw da nga nelaw sama waa ji. d'accord naa nangu naa damaa ju damaa daanu ba ak samay tàkk nangu naa. xam ne waa ji yow lay wër defaraat lépp ndogu laa leen di invité nangu nga. nangu na sama waay la sax loo ci xamul waa ji fi mu toll nii bu naree cuune nag. ma daal di rox pion de ndax fi mu toll nii xam naa ni tapet la. cappaat foofu sa baaraam wax. déggal li man yow laay wër sa xeetu sañse déggal li